ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte nuñ koy defee saa su ne ñu ngi fii ci stade Diom Iba Mar Diop association des promoteurs ñoo ñu fi woo mise bi six million la drapeau Matar Ba son excellent ministre des sports ndeysaan mu doon koo xamante ni ba mu nekkee ci sport ba léegi moo yokk wàññiwul benn yoon ñëpp jël ko taf ko ci làmb waa làmb jël ministre des sports monsieur Matar Ba sama gaay champion yëpp fii nga leen di gisee incha allahu rabbi Adama kaay ma dugg ci biir xool gars yi nu ñuy dundee làmb ji nuñ koy waajee nuñ koy bégee soxna si soxna si maa ngi lay siyaar. maa ngi nii. noo def. maa ngi nii de ça va bien. ngeen yëgee ci jaay bi ngeen di jaay ci stade bi. làmb ji xanaa neex rek. waaw ni ngi xaar ba ñu yóbbu ko stade bee nag waaw. ay la mujjee tëgg ci stade Jom Iba Mar Diop. bëre nan nga ko yëgee di nga waaj dem arène nationale wala. waaw waaj kay lamb ji kay buñ ko yóbbee fee baax na waaw damaa bëgg nag ministre bi nag mu xam ne ñun jaaykat nag si lan bokk si stade bi si lamb ji lan bokk waaw. mu jàppale leen mu jàppale nu nu ñuy bàyyi nuy dugg ci stade yi di jaay normal waaw surtout stade bi buñ fa demee tamit nan nu bàyyi nuy lal normal waaw ndax ñu nag lamb jee ànd waaw ndax si la ñuy gërëm ñu di dimbali yóbbu sunu njaboot yi waaw. jërëjëf soxna si jaajëf. làmb ngoog Adama. maa lay siyaar. maa delloo siyaar bu wër ku baax. dina koy tey moo fi des cib xëy. waa gis nga moo tax ñu koy def. xam nga li la làmb bëggee ak cofel gi ñu am ci sa baay gis ko ci yow mu am fi sa baay tegoon sa tànkam muy baa bu Ngom nga ñëw bëgg faa teg sa tànk waaye yaa ngi liggéey liggéey bi mucc ayib ci làmb xam nga lool waa gannaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur ak sama tante maa ngi waa senegal yëpp. di nuyu ku lu amateur daal maa la lay nuyu di la wax ne loolu xam ne fi sam papa bàyyi woon moo tax may rey sam bopp ndaxte sam papa mel ni moom yombul damaguma ko mais dinaa ko romb nag incha allah loolu mooy sama mébét fi mu commencé fi mu man fa laay ñaan yàlla commencé dem mais bëgguma commencé fi mu commencé yem fi mu yem damay ñaan yàlla commencé fi mu yem continuer loolu laa ñaan yàlla. ku ne xam na ne fi mu tol nii animation ci wàllu bëre simple moom moo ngom da koo téye. waa sant yàlla ñëpp tëggkat ñëpp a ngi tëgg ah waaw ndax moom moo xale la rek waaw day nekk si yoonam di liggéey day ñaan yàlla yàlla gën a yokk contrat yi gën a yokk xëy yi may ñu gudd fan ak wër ak wër gu yaram ak ak fekkee ak muñal si seetaan ak ñun ñëpp waaw maa ngi ñaanal ñëpp daal di ñaanal ñëpp jàmm ndax di nuyu sama père sama idole muy Maodo Faye di ko nuyu de passage sama père la sama idole sama lépp la tey lépp lu may def tey jii yàlla ak moom la kon dama koy nuyu bu baax a baax a baax Uh-huh. yaa ngi waaj dugg ci bu baax a baax a baax. dina neex dina dina yow dina neex na métti incha allah. Ah, jaajëf ma buur géwél a ngoog. <laughs> buur géwél a ngi noonu. sama idol ndeysaan. buur géwél a ngi noonu. buur maa la bëgg. barki yonent bi maa la bëgg. daal moto tey. moto moto moto. ay wasaare. ay wasaare. lii maa jàmm la wasaare lu ngeen nar lan ngeen nar mujjee juddu gën a xew lii ku ci mën dara dogalu yàlla kenn du yow dogalu yàlla saa yoo ma gisee na ma jàppal dina baax di ma conseiller am yéene bu rafet ma ni séentu asamaan jarte buuxante àdduna li fiy xew leen rek la mooy ak mbaax waaye tey ki xewle nee naa chaque ministre de la république war nga jàngee ci moom li ngay jàngee ci moom mooy lan mooy humilité Matar Ba lu mu am humilité moo ko may te loolu defe naa ne Sénégal la yëpp maase nañu ci nangul ko loolu xam nga tey ku ci ne ci ñun la ngay dundee sa kër sa poste bi lay jugee mais nag wan na nit ñi loolu mooy il est seul ministre boo xam ne xale bu ndaw mën na koo taxawloo fii tey mu yendu fii tey association des promoteurs dajaloo tuddee ko bés. de 1960 à nos jours mu ngi soogam un ministre des sports bu ay bu ay promoteur daje tuddoo ko bés mu ngi soogam. sa xarit la mu gis la rek ne la buur. non non dafa baax. wallahi maa ngi lay gënal ci Cheikhul Khadim am lu dul moom musuma dem bureau wax ko soxla personnel barke Cheikh Moussa Mbacké ma yaakaar mais am na ngor am na yar am na diine te am na yëg te nit ñi ku leen yëg dañu faal xam man boo ma xoolee xam ne ma ci. géwélu yooyu di def yooyu parce li may bañ moo bari ndax ma Sëñ Tuubaa daa regg sama biir bii Sëñ Tuubaa boo ko sexee loo sex yàbbi ko waaye maa ngi lay waatal ci yàlla nañu ko bàyyi xel. nañu ko bàyyi xel maxtaan ba ay wasaare. ay buur kookoy buur géwél ndeysaan suñu confrère la waaye ku baax la ku am jom la ku gëm li muy def la buur géwél Adama ministre des sports a ngi noonu. Ndeysaan ministre des sports a ngi noonu Ndeysaan monsieur Matar Ba lamb bëgg ko Ndeysaan Matar Ba a ngi noonu saafonte naag Pape Abdou Fall Ndeysaan ma nga noonu Ndeysaan mu ànd ak Mame Boye Diao Ndeysaan du jaaj jekkoo ngi noonu ci wet ga Ndeysaan ministre ku baax làmb ko bëgg ndaysaan ndaysaan Adama ministre ngi noonu Adama ma nga noonu de ndaysaan la buur gi waxoon ci moom rek ne ci moom ministre la boo xamante ni. maa fekk la police bëgg maa booy jaaw xaritu Matar Ba. gunge na ko fu ne. maa booy jaaw ndawalu son excellence. ndeysaan. moom Momo Ngom Momo Ngom la Babou Ngom ay baayam nii la baayam doon defee combat fii la baayam tegoon loxoom moom moomoo Ngom Adama jëlal Bye.